démb yàlla dafa dogal ñu nekkoon ci suuratu Saad <coughs> fekk ni Saad jotoon nañ ko tafsir daaw ci tafsir en ligne yi loolu nag moom moo ñu xawoon a jaxase ndax moment corona bi tafsir en ligne lañ doon def moo tax tey biñ ñëwaatee dañuy tëb suuratu Saad daal di ñëw ci suuratu Zumar بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو مسلم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تترك تتركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور الحمد لله رب العالمين سورة زمر الزمر موي مبولو ساروي مكة لواتي نيجي دفتي أي آية soixante-quinze aaya muy juróom ñaar fukki aaya ak juróom am na ci loo xam ni Makka la wàccee am na ci loo xam ni Madina la wàcce li tax ñu tuddee ko dumar yowmal qiyam dafa am zumratul atqiya muy mbooloo mi nga xam ni dañoo ragal yàlla min ahlil janna yàlla nañ ci yàlla boole waaye mu am zumratu tuasa min ahlil naar am it mbooloo yoo xam ni ñoo it dañoo torox yàlla nañ ci yàlla musal muy waa safara alimaamu tirmidi nettali na jëlee ci yaa aysha radiallahu anha wa ardaaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yanaamu hatta yaqra addumar wa bani israil ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul tëdd waaja nelaw lu dul mu jàng suuratu zumar ak bani israil moom la borom bi wax baada awudu billah min asheytaani irrajim su ngeen déggee suuratu bani israil mooy suuratu isra suuratu isra baada bismillahi irrahmani irrahim borom bi ne tanzilul kitab wàccub bile téere te jubluwaay bi mooy alquran tanzilul kitab wàccub téere bii day bu leen foog ni mukk muhammad moo ko indi sallallahu alayhi wa sallam wala diw sàng ma ko indi déedéet wàccub téere bii ne min allahi al aziz al hakim nee na wàccam mi ngi bàyyikoo ci yàlla li mu bëgg a wax mooy yàlla moo wàcce téere bii yàlla ko wàcc kon alquran téereb yàlla la téereb jullit ñi la borom bi jox ko jibril alayhi salaam jibril indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon téere bi boroom bee ko wax moo ko wàcce ngir mu nekk njubam sunu xeet kon nag boroom boobu mooy aji mën bépp mbir waaye mooy aji xarala ci ay waxam ak i jëfam ak yoonalam ak kàttanam ak i dogalam ne inna yëgal yow muhammad ne ñun yàlla day anzalna wàcce nañ ilayka ci yow alkitaaba téere bii di alquran borom bi nee na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñoo wàccee téere bii ci yow bil xaq ci dëgg téere bii ci dëgg la wàcce téere bii ku ko jëfee jëfee dëgg ku ko xam-xam dëgg ku ko mën-mën dëgg ku ko waxee wax dëgg kon téere la boo xam ni wàcce nañ ko ci dëgg du neen kon nag yow muhammad eh, faabudillaha ndigal liñ lay njëkk sant ginnaaw sa xeet mooy na nga jaamu yàlla moom rekk na nga jaamu yàlla moom daal su olof moom daal mooy rekk faabudillaha na nga jaamu yàlla muxlisan mbir moom di sellal lahu ñeel ko ad diina jaamu ga kon jaamul yàlla te sellal jaamu ga diine jang koy jaamoo waay waay na ko sellal lépp lu waay def bu sellee mu am ci yiw bu sellul safaan rek la ci am wa maa umiru illa li yacbudu allaha muxlisiina lahu ddiin kon nag borom bi ne alaa dama ni lillaahi ñeel na yàlla ad diinu diine gi di ko topp alxaalis bu sell ñeel yàlla kon diine gi nañ ci jaamu yàlla moom rekk moom dal bañ koo bokkaale ca jaamu ga bañ cee dugal keneen looy def def ko te yàlla tax looy wax wax ko te yàlla tax bu ci dugal leneen bu ci dugal keneen mu bàyyi loolu nag daadi ñëw ci ña nga xam ne danoo yaakaar ne am na ñeneen ñu leen mënal dara danoo yaakaar ne am na ay mbindéef yu am kàttan war a am ay dogal di dogal fa kanamu yàlla moo tax borom bi dani walladina amma gaañ a nga xam ni wala ndaal gaañ nga xam ni day ittaxadu jàpp nañ min duunihi ne walladina gaañ a nga xam ne nag ñoom ittaxadu jàpp nañ min duunihi wulif yàlla aw awliyaa ay ndend moo xam xërëm la moo xam lu ñu yett la moo xam nit ku ñuy jaamu la moo xam kuy dox sa digganteeg sa borom ñooñu jël ñeneen ñu dul yàlla doxale leen seen digg ak yàlla def nañu musiba parce que fa mu leen di jëme mooy yaakaar ay mbindeef jàpp ne yowmal qiyaam am na ñu fa mën dara jàpp ne seen digganteeg seen boroom am na ñu ca mën a dox jàpp ne seen digganteeg seen boroom am na ñu fa mën a amee kàddu ñoo xam ne dañ leen di xam xam seeni ndey xam seeni baay jàpp ni am nañu sañ-sañ mën-mën bu kenn amul moo tax borom bi ne wallazina daal gaa ñi nga xam ne nag ñoom ittaxadu jàpp nañ min duunihi wulif yàlla awliyaa ay ndenn ñooñu day xamal ni soo laajoon yéefar yi walla nga laaj ñu ñun ñooña ñuy topp di leen yaakaar jàpp ni mënal nañu leen dara jàpp ni mënal nañu leen dara ñooñu di def loolee soo leen laajoon lan ngeen jublu ci ñii ngeen yaakaar lan ngeen jublu ci ñii ngeen di jaamu boo jël ab sénégalais nga laaj ko ne ko ki nga yaakaar lu tax nga yaakaar ki nga ni moo yor yoral àjjana lu tax nga yaakaar ko ñoom dañ lay wax rek ne maa na'buduhum yaakaaruñu leen wala jaamuwuñu leen illa li yuqarribuuna lu dul rek ñu jegeel ñu ilallaay ci yàlla dulfa ak jege ay taqriban sunu gaa yi fii boo leen laajee di tax nga xam ni ñun yàlla ñu yàlla yërëm ci weeru koor dinga nga ci xamee nit ñi fi ñu toll dangay ngay dégg koo xam ni daf la naan man weer wi bu waaxu woon ba ñëw sama kër fenk waa kër gi ñépp gis ko wooruma wooraaluma lu dul sëriñ diw joxe ndigal walla lu dul sëriñ diw ne gis na ko xam nga ki jàpp lu mel noonu kooku kenn mënta wax ak moom ndax li mu nekk nekkatul tariqa waaye secte la te secte moo gën a grave secte mooy ñi lay def loo xam ne yàlla diglewu ko sañ loola lu yàlla sañloowul kenn nga topp leen ci avec fierté loolu mooy jaamu nit moo tax bëri na fii li ñuy wax naan ay këru diine bëri na lu ñuy wax naan ay tariqa fekk li ci ëpp ay secte la parce que dañoo endoctriner nit ñi ba gëmatuñu yàlla xamatuñu muhammad sallallahu alayhi wa dañuy dem ba jàpp ni ñoom bu yàlla santaane nit santaane dañ fiy bàyyi santaane yàlla te da koy dégg ay nit di ko wax bu yàlla santaane nit santaane dañuy bàyyi santaane yàlla jëm ci bu nit kon loolu nekkatul tariqa loolu secte la su yàlla joxe ndigal dootuñu jël ndigalam mais ndigal li ñu jël mooy li mbindeef joxe mooy loolu jaamu nit la boo leen waxee rek li ñuy lay mooy maa naabuduhum jaamuwuñ leen wala yaakaaruñ leen illa li yuqarribuuna bate ñu jegeel ñu ilallaahi fa yàlla zulfan ak ak jege yéefar yi noonu lañ doon def bu ñu leen waxee seen xërëm yi ngeen di jaamu lu ngeen ci jublu dañ naan jubluwuñ ci dara dañoo bëgg rek ñu yombalal ñu jegeel ñu yàlla kon gaa ñoom it dañ lay wax ni man ki ma topp dama koo topp pour mu teg ma ci yoonu àjjana da ngay dégg senegal li ñuy faral di wax da ngay dégg ku naan tariqa yëpp benn la boo ci jaar rekk mu yóbbu la àjjana fekk du dëgg mënul nekk dëgg loolu wax dëgg yàlla du dëgg tariqa yi nekkul benn yóbbuwuñu nit ñi ci yàlla liy yóbbu nit ñi ci yàlla benn yoon la yonent bi sallallahu alayhi wa moo jiite yoon boobu moo ko jàngal assahaabatu ridwanullahi alayhim rëdd ci tànkam yu sell yooyee rëdd ci ay baaraamam yu sell yooyee ne wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uhu yoon bu jub bii mooy sama yoon yéen jullit ñi topp leen ko wala tattabi'u subula bu leen topp cël yi bu leen topp tariqa yi bu leen topp kër yi su ngeen ko toppee fatafarraqa bikum dana leen tàqaleeg an sabilihi yoonu yaaya yoonu yàlla wallahi ladi laa ilaha gayru benn yoon mooy dem àjjana amul fukki yoon ku la ko wax daf lay théoriser da lay nax naan la kër yëpp benn lañ këru diine yi benn lañ boo ci topp mu yóbbu la ci yàlla waxuñu dëgg yóbbuñ la ci yàlla ci seen i bàyyi lañ lay yóbbu ci seen maam lañ lay yóbbu ci seen i yaakaar lañ lay yóbbu mais yóbbuwuñ la ci yàlla beneen bi mooy borom bi taala wa daf ñoo wax ni suñu juboon te jaare ko ci jinne yi tegu ci yoon bi wallahi borom bi danañu nàndal di ñu nàndalal boppam wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maa an gadaqa yàlla nee na wallahi suñu juboon tegu ci yoon bi danaa leen nàndal ndox moo xamante ni day kerker yi ndax neex bépp bànneex mi ngi ci wa an law istaqaamu ala tariqati moo xam jinne moo xam nit képp ku bëgg yàlla nandalal la boppam yowmal qiyaam toppal yàlla royal muhammad jaamul yàlla soo ko defee ba yàlla nangul la yowmal qiyaam xam nga fooy bokk wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura yàlla day du la wax ni dama lay nàndal lu neex ndax lu neex da ngay hésiter da nga lu neex daa saf suukar walla dafa saf lem wala dafa saf nàngam loolu la xam ci lu neex yàlla moom ñëw ne du ma li ma leen di jox moo gën neex wa saqaahum rabbum sharaban tahura nandal boo xam ne dafa laab ci lépp neex ci lépp bépp cafka bu neex ci yow di ko santiir ci li la yàlla di nandal ba pare mu wuuteeg ba nga ko teg kon yoon bii benn yoon la wa an law istaqaamu ala tariqat eh la asqaynahum maan gadaqa mbokk yi kon ñooñu nga xam ni dañoo ut ay ndend ut ñu ñu teg seen kanam ut ñu ñu topp ñu ñu yaakaar fii rek la ñuy beneen bi mooy suñu ñëwee nekk ci weeru koor muy weeru jàng alquran weeru nafar alquran weeru jàng diine xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chaque koor da doon ñëw di jàngalanteeg moom alquran sallallahu wa sallam et pourtant yonent bi mokkal na ko du ko fàtte borom bi noonu na ko wa allamaka ma lam takun taalam xamal na la loo xamut woon wa kaana fadlullahi alayka azima beneen bi borom bi taala wa tabaraka ne ko sa nuqri'uka fala tansa xawma ma kuy fàtte yow doo ci bokk danañ la jàngal ba doo fàtte teewul yonent bi da koy jàng mu nekk ibaada nekk jaamu yàlla ñun jullit ñi ñu woor wala ñun jullit ci senegaal ñu woor ñu war ñoo waxal lan mooy attay koor lan mooy sunnay koor lan mooy njëriñu jàng alquran lan mooy topp yàlla lan mooy diine ñu ñuy invité ci télé yi di ñu waxloo ci sëriñ diw sëriñ ma sàmba sëriñ ma dem programme FM yi télé yi ngeen di yépp loolu moo fa nekk télé bu ci nekk am na programme invité benn kër diine waa kër ngomeen ñëw tey tagg sëriñ ngom wax lu nekk sëriñ ngom a ko mën way fottasu folklore jóg dem seen yoon foog ni loolu diine la déedéet du diine loolu moog li gaa yi def ñooyam daanaka tànn biir la rek ñu baal ma ci wax ji nag daanaka tànn biir la parce que ñëw war a wax nit ñi lan mooy attee koor nga ñëw naa diway waaja ku ànd ak diw foo jaar fu diw nangam fu diw nangam loolu soxlawuñ ko ci koor koon wallahi bu doon tele yi dañoo toog koor ñu tafsir alquran woo benn borom xam-xam laaj ko ci diine muy wax loolu moo ñuy jëriñ mais dañuy seeti koo xamante ni ku suufe la indi benn waaye boo xamante ni ñi taawu suñu diine lay ñëw pour saaga di saaga Bukhari di saaga muslim ñàkk teggin yaradiku nga xamante ni yaradiku weesuwul buxaari li mu def ci diine ji muslim li mu def ci diine ji nga ñëw yëkkati sa baay bëgg a daaneel buxaari kon loolu da ngay gis ni màggal yëkkati ay nit la moo tax boo leen waxee ñii ngeen topp jël leen dañ naan maa naabuduhum topp ñu leen yaakaarul leen mukk-mukk illaa luy xarribuuna lu dul ñu jegeen ñu ilallahi ca yàlla zulfan ak ak jege borom bi ne inna allaha naka yàlla day moom yaxkumu dana àtte baynahum seen diggante fii maa hum fii ca mbir ya ñu nekkoon yaxtalifuuna di wuute ci yowmal qiyaam lu yomb la suuratu zumar yowmal bu ñu dekkee lépp lu ñu wuute woon yàlla dana ko àtte lépp lu ñu wuute woon ku nekk la nga gëmoon da nga ñëw taxaw nga layal ko te kenn du fa am lay ku dul ni muhammad laa àndaloo yowmal qiyaam kenn du am lay lu dul ku ñëw ne muhammad laa àndaloo ñi amul lay lu ñuy wax yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila aka neexoon ma ànd ak muhammad mii bi ñu la koy wax ci àdduna nga bañ wala nga ni sax muhammad laa gëm ba buñ ko tuddee nga fottasu waaye lu mu jàngale doo ko def nga jël li keneen jàngale danga ni yaa layta nit taxartu maa rasuli sabila aka neexoon ma ut yoon ànd ak muhammad sallallahu wa sallam kon yàlla nañu yàlla tënk ci ànd ak muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuute yi ñu wuute ci àdduna yit yàlla dinañ ci àtte wuute yi ñu wuute ci diine yàlla danañ ci àtte tooñante yi ñu def yàlla danañ ci àtte yonent bi nee na moytu leen tooñante même kuy bi tooñ moroomu kuyam mbëkk ko béjjinam damm walla mu nàcc ndax doole la ko ëpp xam nga ni baahima yi benn du dekk yow mal qiyaam baahima yi bu ci dee buñ la suulee rek foofu lay jaar ndax amuñu xel dañuy nekkaat suuf nekk leneen waaye bépp baahima bu tooñ moroom fas bu màtt moroomam wala gaynde gu màtt moroomam wala jën bu wann moroomam ba ci kuy bu mbëkk moroomu kuyam béjjënam damm yàddal da yàlla da leen di dekkil ñoom ñaar da leen di dekkil bu leen dekkilee kuy bii yaa ëppoon doole laadum nga wala azawaat nga wala nàngam nga danga nga doon jaay bii doole ndax moom pël-pël la wala mbere-mbese ni ko tuy béjjën bi damm ah yàlla jox ko doole moom moom pël-pël boobu ñëw ni laadum bi tuy béjjënam damm yàlla na leen nekk leen suuf kuy atte ba atte baahima yi kon nit ñi fu ñu jëm wallahi ladi la ilaha gayru sénégal nañu ragal yàlla dañuy foye bakkan wallahi da ngeen di xool rekk suñu réew daaw jéeg lu ñàkk solo lu ñépp xam ne du dëgg ñu rey ci quatorze personnes fukki nit ak ñeent damm ci ay loxo fëkk ci ay bët dagg ci ay tànk er, dàq ci ay nit seen liggéey ci lan ku mer rek rek jiiñ nit njaaloo am na walla amut yàlla xam waaye li biir ñu koy dégg xam nañ ni lii moom lu leer la ka loolu bu tàmbale woon ca kaw bu ci suuf ñoom ñépp responsable lañ ci kanamu yàlla yowmal qiyaama wallahi ki jël xaalis fay dem jëli xale bu jigéen ne ko jiiñal kii njaaloo fay ko jël ay nit ne leen accompagner leen ko jël ay avocat fay leen jël ay juge fay leen jël ay procureur fay leen parce que yor na alal fexe leen ba ngeen takkal kii ba ñu tëj ko kaso am na walla amut yàlla xam waaye su ngeen defee loolu ba pare loolu ñu def ko mu sabab ay nit génn di bañ di riposte ñu rey ci ay nit dóor leen ay bal buutaabut ñépp di ko gis ñii ñu rey leen ngan foog ni ki pilote mbir mi mooy walladi tawalla kibrahu xaw ma kan waaye ki ko pilote dootul nelaw ndax am na ca kanamu yàlla fukki nit ak ñeent yu mu rey ndax moo leen reyan ah. ñaareel bi ndaw si nangu lu bon loolu ñu defloo ko ko ngir alalu àdduna dana taxaw ci kanamu boroomam fukki nit ak ñeent la rey am ñu mu gaañ yàlla dana ko fay ci ñoom procureur ba leen may doole juge ba leen may doole président ba leen may doole képp ku bokk ci complot bu mel noonu su fekkee ni xàqan complot la ñoom ñépp yàlla dana leen taaj ku nekk nag nela lan moo tax ngeen def li sabab rey nii loolu day leer moo tax lu waay def na xam ne muy def yowmal qiyaama dana metti lool nguur jaru ko alalu àdduna jaru ko multimilliardaire jaru ko teraangay àdduna jaru ko li ci gën a metti mooy ñi tëral lu mel noonu kenn ñemeetul génn ñépp jaaxle nañ ku nekk ngi fitnawu ndax jaroon na ko jullit foofu lay xoole mbokk bul nangu ko la fay ne la rayal bul ñàkk fayda ñàkk liggéey benn Umar Sall ñëw ne la booy dama bëgg nga agressel ma diw quoi parce que daf maa yàq wala nga agressel ma diw quoi parce que day wax yàlla nee na day xas sëriñ ci day saaga sëriñ ci waaw dama bëgg nga nga nga nga cambriolel ma ko defal ma ko nàngam nga lekk ci loolu nga ne naa dem cambriole pour jéem a sonal benn waay ma jéem a lor benn waay fii nga ko yombalee mais yow man xiyaam li yàlla wax lu leer la borom bi taala wa tabaarak daf ñoo leeralal ni inna allaha naka yàlla yaxkumu dana àtte baynahum seen diggante kenn ku nekkat jigéen ak wu jëm yàlla dana leen àtte de nit ak dëkkandoom yàlla dana leen àtte de jëkkër ak jabar yàlla dana leen àtte de patron ak employé yàlla dana leen àtte de seen daara ak taalibeem yàlla dana leen àtte de kenn ku nekk ci ñun yàlla neen dana àtte suñu diggante ci li ñu amoon problème ba jota ca inna allaha naka yàlla ne yaxkumu dana àtte baynahum seen diggante ñu ne ah mu ne fii ma te la nga xamante ni hum ñoom kat na way wuute lañ fii ca moom ay ci mbirum diine ci mbirum àdduna ci lépp borom bi nee na inna allaha naka yàlla day ñu ne waaw mu ne laa yahdi du jubal man huwa waa waaja nga xam ne kaadibun fenkat la fenkat yàlla du ko jógal ndax fen baaxul waaye kafaar yéefar fenkat baaxul bu ca yéefar mu gën a bon inna allaha la yahdi man huwa kaadibun kafaar borom bi ne bokk na ci ñi muy àttee te ñu tooñ ko moom yàlla ah bokk na ci ñu ne ko kan mu ne <clears throat> moom yàlla su fekkoon ni dafa bëgg doom kon day tànn ba ca gën waaye yàlla buggul doom yàlla du jur doom jurul juralul amul doom amul rakk amul sët amul jabar taala allahu amma yushrikun yàlla jomb na li ñu koy bokkaale mu ne law araada yàlla day su bëggoon ay yattaxida waladan adopté doom su ko yàlla bëggoon kon la lastafaa dana tànn moom yàlla mimma yaxluqu te la mu bind maa yashaau lu ko neex subhaana sell ñeel na ko su fekkoon ni yàlla bëgg na doom kon day tànn ci liñ bind la ko neex tuddee ko doomam li mu jublu mooy li nasaara ak yawut ah! jàpp ni yàlla dafa am doom musiba bu réy la yàlla subhanahu wa taala nee na huwa moom allahu yàlla day alwaxid mooy kenn mooy allahu waxidun yàlla kenn la mbokk nañu ko kennal alqahaar yàlla moo not mooy boroom kàttan lu mu bëgg lay def du ci diisoo kenn laajul kenn xalaat laajul kenn bëgg-bëgg laajul kenn mën-mën loolu yàlla subhanahu wa taala mënal na boppam huwa allahu alwahidul qahaar yàlla moomu di waahidul qahaar nag ne xalaqa samawaat moo bind juróom-ñaari asamaan wal ard ak suuf sii bil xaq ci dëgg boo xam ni xikma la ak maslaha yàlla dafa bind asamaan ak suuf ci dëgg yàlla moomee yu kawwir moom yàlla boroom asamaan ak suuf dana muuree alleyla guddi ala nahaar ci bëccëg yàlla day jël guddi muuree ko bëccëg jël bëccëg muree ko guddi bu njëkk bi muur la bi ci topp muri yàlla subhanahu wa taala yukawwiru layla day jël guddi muur ko malaanum bëccëg jël day jël bëccëg muur ko malaanam guddi jël guddi muril ko malaanam bëccëg noonu la yàlla mooy inna allaha mooy yàlla day yukawwiru layla dana muuree guddi ala nahaar ci bëccëg mu ne wa yukawiru nahaar mu muuree bëccëg bi ala layli ci guddi loolu yàlla dana ko def borom bi wa saxara moo tàggat ak asamsu jant bi wal qamara ak weer wi yàlla moo tàggat jant muy dem ci ndigal mu tàggat weer muy dem ci ndigal kullun képp kenn moo xam jant la wala weer ñu ne ha yàlla mu ne kullun képp kenn la moo xam jant la walla weer ñu ne ko yàlla kullun jooju nga wax jant beeg weer mu ne yajri yi dana daw li ajalin jëm ci dikk musamman bu ñu tudd benn bu ci nekk am na lu ko yëkkati am na fu mu jëm waaye yéen moom da ngeen topp basang bi di yàq rek yéen ba ma pare ci yéen nee na kon kullun yajri li ajalin musamma benn bu ci nekk dana jox ci diir ak dig bi ñu ko tuddal mu ne alaa dama ne huwa yàlla day al azizu moo not kàttan mooy aji tedd al ghaffar mooy jéggalaa kon yàlla not kàttan yàlla tedd yàlla mooy jéggalaa kon yàlla ñu yàlla jéggal borom boobu day xalaqakum bind na mu leen min nafsin waahida ci benn bakkan borom bi ne bind na mu leen ci benn bakkan yaani aadam yàlla bind nañu ci aadam aadama mooy suñu baay mooy suñu maam mooy cosaanu mbindam doomu aadama moo tax ñu askanele ko nit ñépp moom ci suuf lañu ko bind moo tax ñu ne ñu ci suuf lañu bokk kon bi yàlla bindee aadama ba pare ne summa jaala mu def minha ca mbindam aadama zawjaha soxnaam mooy hawa faanu càmmoñam borom bi génn ca hawa xawaa nekk soxna aadama ngir ñoom ñaar ñu mën a ànd mën a am ab njaboot kon di bindam nit ñëw na aadama mooy seen cosaan ak yaay xawa aadama amul ndey amul baay xawa am na baay amul ndey isa am na ndey amul baay amul benn misaal bu dul yàlla joxe na ci misaal xam nga lan moo amul ku amul ndey ak baay kenn dong la kenn rek li tax bunt yi yëpp yàlla tëj ko borom bi ne lam yalid walam yuulad walam yakun loo kufuwan ahad jurul juraluñ ko amul moroom amul ndenn du kenn moom yàlla rokk kott dong yàlla moomu di rokk kott dong mu bind aadama xañ ko ndey xañ ko baay su aadama amoon ndey ak baay kon danañ am beneen cosaan bu dul aadama danañ ko am danañ ko am jinne yi soqe ko wuñ ci aadama ñoom mbindeef lañ yu ñu bind ci safara lañ leen bind ñu ne seen maam kiñ ci njëkk a bind en tout cas borom xam-xam yi wuute nañ ci ci ñaari mbir ñii nee nañ jaan mooy cosaanu jinne yi seen maam jaan wal jaanna xalaqnaahu min qablu min naari am na ñu ne déedéet jaan nekkul seen maam waaye seen maam samum la ndax ñu ne min qablu min naari samum ala kulli haal li gën a lëng mooy maamu jinne yi jaan la mooy turam jaan moomu ci la iblis cosaanoo kon iblis nekkul cosaan ci jinne yi waxoon naa ko fi kon iblis du cosaan ci jinne yi ci ñoom la bokk baayam jinne la yaayam jinne la iblis am na ndey am na baay jaan kay lañu xamalul ndey ak baay ndax wal jaan xalaqnaahu min qablu min naari samum jur gi am nañu cosaan laakin xamuñu ko yàllaa ko xam daf ñu ko nëbb kan moo mën a wax ni nag yi ban mooy seen baay ndax am nañu tur kan moo mën a wax ni bëy yi bii mooy seen baay kan moo mën a wax ni euh, golo yi biyee seen baay mbaam yi biyee seen baay loolu intéressé wut waaye li am solo mooy nit ci boppam na xam cosaanam pour mu xam fu muy teg tànkam yàlla indil ñu cosaan boo xam ni boroom amul ndey amul baay suuf moo tax minha xalaqnaakum wa fiha nuiidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra mooy yowma alqiyaama minha xalaqnaakum yàlla nee na ci suuf laa leen bind parce que seen cosaan ci suuf laa ko bind xuliqa aadamu min turaab aadama ci suuf lañ ko bind kon aadama cosaanam suuf la aadama kon bu bëggee woo pàppam walla yaayam na jege suuf ndax suuf mooy pàppay aadama mooy yaayam yàlla utal hawa baay bañ hawa nàmp naan yaay naan nangam su boobaa kon ñu am beneen cosaan yàlla génne hawa ci faaru càmmoñu aadama préparel ko ngir war la ni wan la ni soxna bi nga war a am sa rakk lay doon wala muy sa mag sa bàjjen sa tànta néew doole néew pexe na mu ko bindee ci wàllu càmmoñ ngeen di mottalante lay tekki ñu ne la moom dafa néew doole dafa néew xalaat day génn këram ñëw ci yow kon danga ko war a yërëm kon hawa am na pàppa su ko neexee ne aadama mooy safa ndax hawa cosaanam suuf la hawa cosaanam suuf la ndax aadama cosaanam suuf la ci aadama pare ñu defal ko ruu bind ci hawa kon hawa boo ko toppee ci aadama la jëm aadama yit boo ko toppee suuf la jëm kon ku nekk ci ñun sa cosaan suuf la soo ko weddee tooyalal sa baaraam sangul ba set nga rëdd sa loxo bomb yàgg bu yàggee rek tilim génn loo sangu sangu ba jàpp ni set nga boo bombee bu yàggee rek tilim génn nee nañu loolu cosaanu suuf la ku mu neex nag jëlal sa waxuma la njàmpe demal jënd ay mbomb teg bombul sa bopp ba nàcc boo paree nga bomb loolu day génnal ndax lan la yéen ñépp kullukum min aadama wa aadama trois bi ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko aadama ci suuf la bàyyi ko nga ni waaw kon nit kooku am cosaan am fi mu jaar ginnaaw bi ñu bindee aadama ci suuf muy yuur suux yàpp deret ndox borom bi def ci ay cellules yoo xam ni li nit kiy lekk di naan am na fu mu jëm lenn li day dundal yaram bi ci deret bi ci yàpp wi ci suuf bi ci xel mi lenn li nekk déchet bu war a génn muy cabinet jëm feneen léegi loolu di ñëw ci ndox meeg suukar si di togguwaat ci yaram bi loolu di toggaat benn ndox moo xam ni mani yu la tudd mani boobu dajalewaat mboolem cëri doomu aadama la tàmbale ci yuur ba ci cati tànk yàlla def ko ci doomu aadama di ko génnee bànneex moo tax li ma ta sante yàlla bari na yàlla ñu yàlla may ñu mën koo sant moo tax borom bi ne ko moom yàlla bind na leen min nafsin waahida ci benn bakkan ne summa mu def minha ca mbind ma zawjaha soxnaam te mooy aadam te mooy hawa hawa jóge ci aadam borom bi ne wa anzala ginnaaw ga nag mu wàccee lakum ñeel leen al anaama jur gi jur gi ngeen soxla kër goo dem fekk fa jur ñii am xar ñii am bëy ñii am nag ñii am gëléem ku nekk am loo am loolu yàlla daf ñu ko wàcceel léegi nag loolu yàlla wàcce juróom-ñetti peer la samaniyata azwaaj nag góor ak jigéen nga ni ñaar gëléem góor ak jigéen nga ni ñaar bëy góor ak jigéen nga ni ñaar xar góor ak jigéen nga ni ñaar ñeenti ñaar juróom-ñett la moo tax borom bi taala wa tabaarak ne ñu na ngeen xam ni day wa anzala lakum wàccee na ñeen leen min al anaami bindal na leen ci jur ga samaaniyata azwaaja ñetti peer juróom ñetti peer ñu ne ha nee na min al da'n am na snayn comme ni ma ko waxee woon min al ibli snayn wa min al baqara snayn wa min al maïs snayn borom bi nee na bu mu paree ci anaam ne yaxluqukum yéen nit yàlla ne bind na leen fii bu butuuni ummahaatikum ngeen nekk ci biiru seen ndey yi xalqan mbindeef min baadi xalqin ginnaaw mbindeef taaw juddu am tofo ka ca topp toppaat ca caat ñëw mooy xalqan min baadi xalq yàlla bind ñu ngeen jóge ci nutfa jóge ci alaqa ñëw ci mudga ñëw ci azma ñëw ci laxm lan mooy cosaanu nit premier bi nut fa mooy toqantu mani bu góor bu jigéen daje ginnaaw ga mu nekk alaqa nekk luy lonk ginnaaw ga mudga mu nekk lumbu deret su ma kasaw naa ñu def ca azman ay yax yax yi ñëw borom bi nee na ginnaaw nga mu woddee ko laxman yàpp loolu lépp yàlla nee na mi ngi ko denc fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm la ko denc ñetti lëndëm la yàlla denc nit allahu akbar moo tax nit dafa lëndëm su ragalee yàlla rek lay leer su ragalul yàlla day def moo tax yéefar dañoo ñuul kukk yowmal xiyaam dañuy gën a ñuul jullit ñi dañoo weex tal yowmal xiyaam dañuy gën a leer moo tax yi dañu topp jullit ñi yowmal qiyaam naan leen unduruuna naqtabis min nuurikum jullit ñi am fayda ne qiila rji'u waraakum faltamisu nuura dem leen àdduna ngeen ut foofu leer moo tax ñu bëgg ngay génn ci li nga am di sarax ñi amul ndax yàlla leerale ko sa bàmmeel ngay génn ci li nga am de dimbale ñi amul nga di ko leerale sa bàmmeel masala dana ñëw foofu bépp sarax boo yàlla def bu nit def na nekk ngir yàlla lu waay di joxe lu waay di def na nekk ngir yàlla gis nga borom bi nee na su ngeen nëbbee sarax moo gën waaye su ngeen ko waree it dara nekku fekk ixlaas am na ixlaas nag kenn mënta toog fenn di ko àtte li nit ki def munoo toog fee ay waaye li muy def sellul waaye if yàlla taxul déedéet problème mu xol la ndax borom bi dafa ni in tubdu sadaqaat fa ni'imma hiya yàlla nee na su ngeen wanee sarax lu gën la wane sarax léeg-léeg nit wane sarax pour lan may nekk jubluwaay bii pour keneen gis ko mën a joxe am na benn Umar Sall bu fi nekk dafa nay lool mais bu benn Moustapha jóge jógee génn benn dix mille francs ne maa ko def ci koor gi wala maa ko def ci nangam def naa ko ci ndàngam yow nga dem toog fee pour pourquoi mu koy wane quoi waru ko woon kii quoi dafa waroon def ngir yàlla quoi yow loo def yow yow buñ la toppee kenn du joxe ñaareel bi yàlla moo tagg lool moytu leen di yàlla di tagg ngeen di ko suufeel in tubdu sadaqaat fa ni'imma hiya feeñ bi mu feeñ pour ñeneen génn joxe la yonent bi sallallahu alayhi bi mu laajee pour ñu dimbale ba bani mudar waaye Ousmane ibn Affan lu mu joxe Aboubacar ay bagaasam la gàddu indi ko ne ko bëcc ci kanamu nit ñi xanaa kon dañ naan kii defut ngir yàlla xool kenn du ko at suñu jamono nag léegi ñuy dox caay-caay bëri tiriyan bëri naxekat bëri laajkat bëri ku nekk di profito àdduna yàqu ñiy génn seen yëf di joxe di la jox ne la joxeel dañuy soxla preuve am na ci nit ñu ku la bëgg lool jox te yàlla tax xaarul ci yow dara ndax fukki xelam yaakaaram jàpp nañ da nga koy joxe kon yow waroo ko trahir waaye am na koo xam ne li muy joxe lu mu néew néew da koo bëgg a gis kon forcément li ñuy joxe dañu koy photo ñu caméra ko ngir ñeneen ëllëg ñu mën a def te yàlla tax waaye ñeneen ñi joxe woon ñu gis ni li ñu joxe joxe nañ ko la ca def nag mbiru yàlla la dañ koy bàyyee yàlla yàlla moo yore wàllu wàllu xol yi toujours nag joxe bu amee rek àtte bari yonente bi poñe nañ ko ci joxe ne ko alal ji du sa alalu ndey du sa alalu bàyyi moo ko te fekk nag yonente bi moo yore dogal toujours foo dem da ngay gis ci mbooloo ñoo xam ni suñu meree rek wax wala suñu amul wax ay mécontent lañ mécontent nag dañ koy leeralal ba mu leer ci boppam mu xam wallahi bëri na ñoo xam ne danañu yëkkati di joxe nga am ay kàddu yooyu wax seen ginnaaw te xamoo soo xamoon li ci biir nii dafa baax nii noppite ragal yàlla dafa baax gis nga ñuy joxe gënuñ ñoo bëgg a joxe de ah allahu akbar yàlla xam nit nanu bàyyee yàlla muy àtte quoi yàlla moo xam nit yàlla moo xam nit mbir dina jaar ci loxoy nit ñu koy joxe ngay am njort ju ñaaw moom ma koy joxe boo xamoon la muy def <laughs> ñàkk xam baaxul daal yàlla nañu yàlla dimbali insha allah rabbi loolu dama koy wax ngir leeral yenn commentaire yeeg yenn bind yi yenn waxkat yi wax ci facebook ak yooyu beneen bi suñu société melul ni yeneen société yi société asiatique yi lu mel nii am na fa donte bëriwul am na ñoo xam ne dañ leen di jox ñu téye eh cugal fële yàq arrière am na ñoo xam ne dañ leen di jox ñu téye am di joxe am na tey boo demoon aji màkk ngay xam lim lay wax gis nga asiatique yi dañoo yaru ñoom seen lépp tekk la amul xëccoo ñun fii boo commencé joxe rek xëccoo am il faut nga wut ñu taxaw di puusanteeg nit ñi mais boo demoon Indonésie wala nga dem ci dëkk chinois yi wala ñeneen nga fekk bu ñuy joxe kenn du génn dangay ñëw indi ba ci buntu kër nit teg mu rocc ku jël ñoom noonu la ñuy dundee tey boo ne woon da ngay joxe nit ñi doo leen gis parce que ñiy joxe dañuy joxe ngir yàlla ñiy jël jël ngir yàlla ñun nag ci suñu biir am na ñu joxe te yàlla taxut ñii jël am na ñu jël te yàlla taxut loolu mooy sababu lu mel nii di am da ngay fekk Indonésie guddi ay nit day ñëw buntu kër jàmbur sotti fa ceeb diwlin dem sotti fële dem sotti fee dem miskin yi xëy di ko jël nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw ci place jaaykat marché xam ne kii jaay fii miskin la de balaa marché ubbi ñu dugg fa guddi gi tegal ko fa dara teg teg teg su boroom ñëwee di gis rek day xam ni sarax la ñun nag boo amoon place nit ñëw tegal la fa dara boo moytu doo toog ci place bi sénégalais lenn rek nga koy tegal mu ñëw jël ko xaalis commerçant bu ñëw ci taabalam fekk nga tegal ko fa cinquante mille moom dana ko jël waaye boo fa tegee leneen <laughs> lu tax mu teg ko fi est-ce que wóor na xaalis daal moom wóor na ci ñoom waaye lu dul xaalis wóorut kon loolu il faut nit ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kon borom bi subhanahu wa taala ci ñetti lëndam yii la bind nit muy biiru yaayam ak ruxum ba daalikum borom bi nee ki def loole kookee ñu ne kan la mu ne allah daalikum kooku la seen kooku allahu yàlla la moo ko def de rabbukum mooy seen borom ñu ne borom boobu waaw mu ne waawa mooy seen borom de lahu ñeel na ko almulku nguur yàlla moom nguur gi de moom leen laa ilaha illa amul benn borom bu dul yàlla amul ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla kon fa anna tusrafuun fan ngeen jëm fu ngeen am wa anna ila rabbika al foo dem foo jaar mënu rëcc bâtiment boo xam ni danoo tabax lépp mu def benn bunt borom kër gi toog ci bunt bi ne gaa yi daw leen fu waaye jéem a dugg foo jëm yàgg-yàgg rek nga ñëw ci bunt bi moo tax yàlla toog di seetaan wa anna ila rabbikal muntaha lu waay mënti def foo mënti jaar da ngay ñëwaat ci sa borom kenn du rëcc moo tax borom bi ne fa anna tusrafuun fan ngeen jëm léegi nag in takfuru su ngeen weddee yàlla <laughs> fa na allah yàlla ne ganiyun aji gii jël la ankum yàlla su ngeen ko weddee faale wu leen de su ngeen ko gëmee faale wu leen su ngeen ko weddee faale wu leen ndax mu ñu leen ko yàqal dara moo tax mu ne in takfuru su ngeen weddee fa inna allah day amul benn aajo ndax yàlla ganiyun aji giijël la an ko mu si leen te kat nag yàlla donte nag wala yarda gërëmul bëggul al kufra kéefar li ibaad yi ñeel jaamam yàlla bëggul jaam ñu nekk yéefar bëggu ko waaye bu ñu nekkee yéefar lu mu koy wàññi du ko wàññi dara dara dara borom bi ne wa in tashkuru su ngeen sante yardahu lakum dana ko gërëm ñeel leen borom bi ne wala taziru du yenu mukk waajiratan def ko ci bàkkaar widra uxra bàkkaar ak keneen kenn du yenul kenn sa bàkkaar lu waay rendi sa loxo lay naat olof nee na deretu téegal du mooy lupp alquran nee na wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli pexe mu bon ci borom rek lay dellu borom bi ne summa ila rabbikum jëm si na ci seen borom marji'ukum seen delluwaay su ko defee bu ngeen nee fa yunabbi'ukum borom boobu soloo leen bi ma kuntum te la ngeen nekkoon taamaluuna di def ko innahu naka yàlla day alimun aji xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi xol yi xel yi yàlla xam na ko yàlla yàlla defal ñu tawfiq